Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi kii mooy yaay xale yi maman ngi nii kii la Abdou Aziz Ndiaye tudd sunu yaay moo ngi nii mooy sunu yaay jongoma barke alxuraan ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fantu wér sa baay toj na réew ren gi xam nga ni VIP bi sa baay ko gàddu lan ngay wax. ah ñun ñëpp gis ñoo ko gisandoo li fi def si gàmmu bi. vraiment on a rien à amuñu dara luñ koy wax. dañ koy ñaanal yàlla rek li mu mën daaw mën ko ren yàlla na ko mën déwén. Mm-hmm. xéewal bu yokk mu mën ko partager ak ñëpp comme ni mu koy defee nii vraiment moom. Mm-hmm. ñëpp si kontaan. parce kër gis ni mu mel. kër gi tamit yaa ngi naan vraiment dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér parce que dundam am na njariñ torop torop torop torop mais en tant que jigéen nga gis sa maam Alima jigéen daan def lii sa maam Ala Ndiaye dañ ko def tey sa baay di ko def est-ce que en tant que jigéen moment am nga xalaatu ëllëg si biir bu la yàlla defalee teranga nga continuer li nga xam sa baay daf ko doon def pourquoi pas dañ koy continuer dañ koy tripler doubler ko ba mu ëpp incha allah parce que affaire bi day dem. parce que luñ suñu maam def suñu maamaat def suñu maam def ko suñu papa def ko ñaan nañ yàlla ñun tamit ñu def ko. affaire bi yokk daal mu du yam fii incha allah ay sët sëtaat lépp dañ koy continuer lii la daal dañuy ñaan yàlla yàlla bàyyi leen fi ba ñëpp fekkee ko tal ko incha lépp léppay baax ñaa ngi ñaan yàlla teral sa baay boo amee xaalis maa ngi loolu rek laa ñaan yàlla teral ko parce que ñun amuñu fayam parce que sama papa man de ñun yow mën a yow ñoo noo dem màkk année bi passé si xale bu ndaw dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla dolli xéewal bi suñu yéene si moom gën a yokk di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi daal ba mu fekkee lépp mu amuñu fayam mënuñu ko fay mais dinañ def le tout pour mën ko satisfaire li muy xaar si ñun yàlla bu yàlla bu mu xaadi yàlla yàlla bu mu am lu muy regretter si ñun ñëpp incha allah ñu koy ñaanal yàlla rek ñaan ko fi yàlla bàyyi yàlla fay ko xolam ndax nit ku baax la nekk lu mu nekk sam papa rek moo tax mais nit ku baax la nit bu nit bu am yërmande la si doomu aadama ñu koy ñaanal yàlla rek ko fi yàlla bàyyi kontaan nga ci tur la sa papa jóge yaayam. vrai kontaan naa si maa yaay waa kër gi yëpp maa seen yaay. seen doom maa yaay xale kontaan naa torop. mais Aziz <laughs> xanaa li mu lay xoolee tax mu bëgg la. waaw loolu day am parce que yaay dafa foor mu tuddee ma yaayam c'est normal mu bëgg ma. du nga jonga ma xale bu jigéen bi. ya <laughs>